Ousmane Sonko di premier ministre bu Sénégal nekkit leader bu Pastef daal dinay nag tontu eh, kii nga xamante ni moom mooy Amadou Ba nekkoon àndandoo président Macky Sall gannaaw sorti bu mujj bi nga xamante ne Amadou Ba jot na koo def kii nga xamante ne moom mooy Amadou Ba doon nag interpellé ki nga xamante ni moom mooy nag premier ministre bu Sénégal doon ko nag tudd ci sorti bu mujj bi nga xamante ne def na ko Ousmane Sonko daal dinay génn tontu na Amadou Ba ci Twitter nag la defee benn post post di xamle li ni mel la mu xamle jamono jiile mooy day woo ki nga xamante ne moom mooy Amadou Ba ci benn débat public boo xamante ne dañ ko nag jaarale ci benn chaîne de télévision loolee nag nekk loo xamante ne mooy mbébétu Ousmane Sonko ki nga xamante ne moom mooy Amadou Ba jamono jii jiile mu nag jiite lii nga xamante ne moom mooy ku jëkk politique gi conférence de presse ba mu doon amal ngir waajal élection législative yu ñu dëgmal ci la nag visé ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko la daal di tontu amadu Ba euh, waaye itam félicité nag ki nga xamante ne moom mooy Amadou Ba nee na ko nag maa ngi kontaan bu baax a baax gannaaw ba nga génnee ci lëlu bi nga doon def gannaaw defeet bi nga xamante ne am nga ko ci élection présidentielle yu mujj yu ñu nag daal di def fii ci diwaanu Sénégal defeet boobee nga xamante ne dal na ci kaw Amadou Ba jamono jilee génn na fas yéene nag janoog askan bu Sénégal gannaaw li nga xamante ne moom mooy proposition boobu Ousmane Sonko daal di def di sàkku ab débat boo xamante ne dañ ko fas amal fii ci diwaanu Sénégal mu fas yéene nekk ab débat télévisé benn chaine de télévision d'accord na ngir nag animé bi les débat nga xamante ne nag ñu ngi koy xaarandi fii ci diwaanu Sénégal Walfadjri ak groupe ba ñu daal di jug ne nag ñoom ñooñee bëgg nañu nag jël li nga xamante ne moom mooy rôle boobee daal di koy joué bëgg nañ nag nekk premier chaine bi nga xamante ne ñoom ñooy nag proposé débat boobee nga xamante ne mu nga fas yéene dox ci digg Amadou Ba ak ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko tension yi nag daal dina yëngu boobu gannaaw rek at yu génn yi nga xamante ne ñoom ñaar leader yooyu gis nañ nag seen digg rataxatul ki nga xamante ne moom mooy Amadou Ba demoon ci élection yi ñu mujj président Diomaye Faye mujj ko duma jël li nga xamante ne moom mooy raw gàddu gi Amadou Ba nekkoon premier ministre ci li nga xamante ne moom mooy nguuru président Macky Sall moom Amadou Ba moomee sax nee nañu moo jëloon deuxième ci li nga xamante ne moom mooy élection présidentielle yu ñu génn jamono ji la nag janoom ak ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko askan bu Sénégal ñu ngi toog nag di ko xaarandi ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi xaarandi seenub jano fii ci diwaanu Sénégal di janoom nag Thierno Alassane Sall ki nga xamante ni moom mooy actuel directeur général bu ASER di ki nga xamante ni moom mooy Jean Michel sen jamono ji nag ñoom ñoo ñee daal di nañuy nag jano gannaaw li nga xamante ni moom mooy mbir yi jot nañu nag tëkkuwante kii nga xamante ni moom mooy Thierno Alassane Sall gannaaw rek ba muy sàkku ak leeraange ci dossier ONAS ASER li nga xamante ne moo laale mbir yooyee jamono jiile jiit bi nga xamante ne moo jiite kër googee di ACR di Jean Michel daal dinay génn la muy sàkku jamono jiile mooy ki nga xamante ne moom mooy Thierno Alassane Sall la mu bëgg mooy nag ay thèmes yoo xamante ne dañ ciy débat ay adversaires politiques daal di ciy tase lu ci mel ni dossier ONAS ACR ak li nga xamante ne moom mooy JP Morgan loole nag jamono jiile la muy yëgal Thierno Alassane mooy moom moomee ak kër gu mu jiite di ACR taxaw nañu temb ngir nag tijji ci ab débat ci seen digg ñoom ñaar loole nag nee na bu mat sëkk la koy jox jàpp na ne dossier bu ACR lu ñu war a la te nag lépp loo xamante ne daf ko ci bëgg a xam comme question moom moomee pare na pour tontu ki nga xamante ne moom mooy Thierno Alassane Sall loolee la njiit bu ACR di Jean Michel Sène daal di xam ne jamono jile nag nee na dawul daayul lu jëm ci dossier ACR ak li nga xamante ne moom mooy reddition des comptes ci ay documents ak i marché dina ko nag nag teg ci taabal ji mu ànd ki nag réponse yu leer nañ loolu la daal di xamle invitation am nag mu ngi koy lancé ki nga xamante ne ah, moom mooy Thierno Alassane Sall ci respect li nga xamante ne moom mooy discipline loolee la ki nga xamante ne moom mooy Jean Michel Sène di njiit bu ACR e daal di xamle. élection législative yi ñu ma lu yees daan na ci am di mbetteel bu rëy gannaaw rek ndaje bi nga xamante ne am amoon na ci primature bu Ndakaaru Ousmane Sonko daje woon fa ki nga xamante ne moom mooy Déthié Fall bi nga xamante ne ñoom ñaar jiile daan nañuy dajawaat ba ñu waxtaanee ba noppi nag déggoo amaan na ci seen biir muy nag digg premier ministre bu Sénégal ak président bu parti républicain pour le progrès ñu gën ko xam ci PRP moom Déthié Fall bokk ca coalition bi nga xamante ne moom mooy sàmm sa kàddu moom mi la nag weddi na kàddoom bu ñu sukkandikoo ci ay alliés jamono jiile war na leen gannaaw ànd ak liste bu Pastef boobee moom moomee sax bu yàgg la boo xamante yàgg na ànd ki nga askan bi ca gannaaw ba la coow ñëw mu daal di leen nag wan gannaaw di ca faal jam na jam-jam yu metti ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay àndandoom wan na leen gannaaw ñoom ku jég politique yi daal di ànd ak ñi nga xamante ni jamono jile ñoo fare ci nguur gi mu nekk nag ab sortie boo xamante ni démb la ñu ko daal di matérialiser gannaaw rek photo yi nga xamante ne gis nañ ko mu daal di nag biir ci biir réseaux sociaux yi di fàttaliku nag ci liste coalition sàmm sa kàddu boobee Déthié Fall moo ubbi nag li nga xamante ne moom mooy cinquième place bi jamono ja nga xamante ne nak mu nga doon gisee ak Ousmane Sonko loolee lépp dafa umpale woon ñi nga xamante ne ñoo bokk ca coalition boobee mu nekk nag loo xamante ne kii nga xamante ne moom mooy Déthié Fall dafa leen ko nëbboon démb la ñu biral ne nag daal di rejoindre camp présidentiel di Ousmane Sonko ak yi ñoñom Déthié Fall coalition ba mu àndaloon ràññeekoon nañ lool ci li nga xamante ne moom mooy xeexub libération Bougane Gueye Dany mile tey jëlee nag al war na leen gannaaw ànd ak ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko ak président Diomaye fay jërë ngeen jëf mbokk yi ñu doon teelu ci chaîne bi nga xamante ne moom mooy réew Rewmi TV loolee moo fi yeesandi woon ci xibaar ñu leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di leen jox dig daje ba beneen jërë ngeen jëf